d'abord maa ngi maa ngi leen di gërëm bu baax euh, di euh, di leen euh, féliciter ci ta liggéey bu rafet de ak taxawaay bi di masaw mbooleem population sénégalaise bi notamment nag population bu commune Ngor fii de ni ko dundee comme toutes les communes vraiment ci coono bu métti lañ nekk depuis ce matin ndax vraiment masuñu am autant d'eau dans la commune à à ma connaissance. donc euh, fitna bu metti lañ ko dundee ak coono bu bari depuis ce matin. matukaay ngeen jël pour soulager population Ngor yi. waaw pour le moment en fait euh, xam nga l'assainissement n'est pas une compétence transférée donc les mairies par elles-mêmes ne disposent pas d'assez de moyens pour pouvoir faire face à ces situations-là mais néanmoins avec les les les les maigres moyens que nous avons mis à disposition des motopompes de, euh, pour les les zones les plus sensibles. ñu gis sama dañuy disposer ay moto pompe pour permettre en tout cas ñuy ñuy réjecter ndox mi dans les dans les ruelles muy dem ci ci ci ci canalisation yi mais loolu du doy parce que ndox bi dafa bëri dafa bëri néanmoins donc on essaie toujours de voir de trouver des solutions par-ci par-là pour les accompagner waaye loo ci def tam ak ndox mi ni mu toll loo ci def tam day mel ni defoo dara rek ndax dafa dafa métti bi nga koy dafa bëri Euh, ndax mën nañu xam parce que ku xam Ngor xam ne à chaque fois su amee euh, taw bu metti ay inondation kanaal bi dafay déborder naka ngeen def ak situation wu canal bi. waaw xam nga situation canal bi je l'avais je l'avais décrit euh, il ak ak xam nga day gis nga ndox bi ni mu toll ci Ndakaaru yëpp je vous laisse imaginer bu fekkee toute cette eau-là doit être drainée vers Ngor je vous laisse imaginer la situation que ça va engendrer je je l'avais dit faut que l'État prenne en main ce genre de questions. D'autant plus que ce n'est pas une compétence transférée, mais même vous faites que c'est une compétence transférée. Si tu décides de drainer toute l'eau de la capitale vers une zone, qu'il faudrait et des mesures d'accompagnement. Parce que tey bu fekkee ndox bu jógee depuis Liberté 6 qui passe par l'aéroport Perry Yoff par Ouakam toute cette eau-là doit être reversée à Ngor via un canal qui doit faire trois mètres de large du ko contenir donc li muy def mooy canal bi et ça part dans les maisons qui avoisinent le canal. Donc toutes ces maisons-là sont inondées. À certains points, ils ont eu jusqu'à un mètre d'eau. Donc tout leur mobilier est gâté. Et puis à l'électricité, le risque il est hyper et ñu ciy profité di leen masawu ñoom ñëpp dans la zone Almadies foo xam ne mosuloon di inondé dafa inondé tey extraordinaire booy dugg Ngor la route principale qui entre vers Ngor après la Briflorée la route est coupée tellement ndox au moment où je vous parle, en fait, il y a des, des poteaux euh, you, you qui risquent de tomber. Tout ça, c'est dû à, la quantité d'eau qui, nous est renvoyée depuis les Congo, les points les plus hauts, notamment vers euh, Liberté 6 avec euh, Wakam. Donc, le mec le métier, le canal ne sait pas qui avait décidé de faire un canal. C'est l'État qui a prévu de mettre un canal d'évacuation des eaux pluviales. Et donc, si l'État décide de le faire et de le faire traverser dans une commune, c'est à l'État de prendre les mesures pour accompagner cette commune pour mu mën prévenir des situations comme ça. parce donc état état bi di aider commune bi état déclenché na li nga xamante ne moom mooy plan Orsec est-ce que vous avez au moins espoir avec ce plan les populations. oui nous sommes très optimistes par rapport à ça sànq maa ngi doon nekk vraiment ak le sous parce que xam naa ne état tey. su sañoon benn problème du am ndax euh, ay na yowén nag ñu ngi ciy jéem a def ay effort mais ça ne suffit pas ça ne suffit absolument pas on espère que cette fois-ci dina ci def loo xam ne lu population bi di yëg la ndax li état di def dafa war a nekk loo xam ne tout de population bi mën nañ ci gis seen bopp la war rawatina nag ci période yi xam ne dafa metti ñu ngi ciy xaar état ñu ngi nekk di def di remonter les informations di remonter suñu besoin pour qu'on puisse faire face à cette à cette donc on espère que plan ORSEC bi day nekk lu concret lu réel loo xam ne à partir de demain on puisse se sentir sur le terrain à partir de demain les, les populations puissent sentir que ni mbir yi mi ngi bouger et que seen situation mi ngi améliorer am na loo xam ne sa reste une catastrophe naturelle ça arrive on peut pas le prévenir mais on peut prévenir en tout cas des risques si yu mel ni amee on peut prévenir on peut anticiper sur les actions à mener su yu mel ni amee on peut anticiper également sur les mesures d'accompagnement ni amee donc ñu ngi woo état ci loolu mu jël commune bu mel ni Ngor mu def ko priorité parce que lu fi nekk ci problème bu doon ne cent problème la disons que quatre vingt problèmes yëpp c' est dû ce canal là qui draine de l'eau pluviale qui nous donne des autres communes donc ngi woo état mu taxaw ci loolu jël commune de Ngor def ko priorité accompagner ngir ñu mën a mën a jàll d' autant plus que fi canal bi déversé ak ci géej bi la en donc il suffit juste que l' état accompagne encadré ko et le problème Magueye Ndiaye mi nga xamante ne moom mooy euh, maire de Ngor honorable ñuy ñëwaat ci yow. daf may bëgg a leeral rek xam naa Binta moom jot na tontom ci maire Ngor li ci des nag mooy euh, comme comme li mu wax léegi ci problème mu catastrophe naturelle man de barki démb Binta dama doon seetaan benn euh, débat boo xam ne ay spécialistes ñoo koy def parce que souvent aussi bu fekkee ne danga am ay responsabilité ci état souvent jamono jii bu jotee dafay comme ni mu